ay ca dama ni gars yi salaamaaleykum salaamaaleykum ku doon laajte faali ngoyangi gars yi dama garab bari bari waaye bokkul si soxo habbatu sawda la ñu wax di garab gi nga xam tubaarkàlla bu ko kenn logo boo ko xoolee benn la muy S H S kon loolu du lu ñuy jaawale wala lu ñuy jël de nga am di ko nattable bari na garab waaye garab bari bari bari bari original bi mooy Sissoko Habbatu sawda kon yow mi jàkkaarloog man di ma xool jàppal ni benn Sissoko am benn Habbatu Sauda bu baax am te mooy bii S S